invité d'honneur. ñëpp ñu xaar maam. ah neex na macha allah. maam sañ ca nga de. sañ naa. Ah. ah dama def nii rek daal di sànneeku si laa yaa ngi gën a xam. <laughs> juppi rek laa ci def say topp accessoire. rek xam nga ñun dañoo bëgg or. waaw tap tapal ngalam téeléer yi. wóoy maam nga fekkee rajo Zeyna ci Viviane mm-hmm. yow nga nekk si nutrité si réew célébrité tey nan nga gisee xew bi. waa kontaan rek di sant yàlla di julli ci yonent bi euh, di wax naan euh, nañu sant yàlla rek bu baax parce que tey bu ñu demee ba boo ñu boole ci réew mi ba lu am ñu invité ñu loolu sant yàlla la. ak mu ñëw moom. macha allah sa relation Viviane ba mu invité la. waa Viviane mosuñu xamante mi nit ku baax la parce que Zénith Sidi Diop moo tax ñu am maa ngi moom xam ñu si la ñu xamante. après mu daal di may nuyu kott ma fóon ma daal ne ma dama lay jox sama invité d'honneur ci xew. Zeyna Ndour bi man tamit ma accepté kon ndax xam nga ni Viviane ku mu woo nga fëx ndax xale yëpp a bëgg a ñëw tubaarikàlla euh, kon tey mu seeti ma ci xale yi invité ma kon damay sant yàlla rek julli ci yonent bi di xam ni léegi sama niveau dafa sama level dafa yéeg dafa gën a kawe level dafa kawe depuis jeunesse la kawe ndax gis nañ jeunesse liggéey bu am solo bi nga def ci jeunesse Sidi Diop bi ah en tant que sœur nga doon jàppale sa frère euh, naka nga gisee nag jeunesse bi waaw kontaan jeunesse bi neex na macha allah am na jàmb am na ambiance di sant Matar Diop suba teel parce que li yombul ay xale yoo xam ne ay influenceurs rek lañ nekk ci TikTok nga dajale ñëpp tey yóbbu leen Paris euh, njëkk leen yóbbu Paris kon dañuy sant yàlla te xam ne ñu suñu liggéeyu nday barke baay ak sens ak wërsëg que nee naa la lu am nañ ko teg ci yàlla te xam ne yàlla la. waaw mais maam lu tax bi bëri na prix bi maam. maam day jaay am na droit def marketing am loolu yow la concerné lu na prix bi bëri ah, yàlla rek. xam ne lii yàlla la moom mooy dogal te moo def maam Ndiaye ni mu mel bu ko soobee rek da koy dindi la ndax am na ñu ma gënoon a féete kaw te léegi kenn déggatu leen dañuy sant yàlla rek julli ci bi xam ne ñun lu ñu laal a gën lu ñu laalu. nga ne woon maam doxal. sëñ Fall Amadou. waaw may moytul oto bi. ñëwal <laughs> VIP, VIP. Thank you. Gambie lii la leen mel nii de musuma koo gis waa mais kii kan la waa mais kii kan la PDG Saveur Ndiambour ah sama lële joowan ba loolu kenn waxatu ko ah. Aja. la wax loolu lii xale yi sax a waaye nag ñu bégal suñu bopp xam nga ne buñ daga nee nag mag yee tax waaye yat ma ku gis. mais nii ngeen caane toog. ni ngeen def caañ jour ji. doo laaj lu tax. géwél bu mag baa ngi. lu yàgg dëgg la. borom Banjul. waa naa la de. gis nga Clara gis nga Clara ndax yàlla ak bés mais Youssouf. Babacar. gis nga Cimbe. Caana boo waxee ci moom dama ciy sawar. gis nga leen nii. Caana ndaxte yaakaar naa ne fii yaa damaa def ak moom ñaar fukki at ak ñeent ci ren. bu fi ko ne woon bàyyi naa ak yàlla. ba Jolof band commencé ba léegi maa ngi moom. dëgg la. boo waxee si Caana dama koy dëggal. Caana Zour si. boo di moo tax ñu woy la Caana Diagne. bàyyi naa la yàlla. loo baax doyel moom mu ñu boole ah dañuy dagañ nag waaye mag ñi. waaw. faaw ngeen jug yëngu. caana dagañ bi yaa ko moom de. waaw. caana yow jaañ naar. bàyyi naa la ak yàlla. lu yàgg waaye nag. ndey tabaski. yaayu Viviane yaayu Maguette Seck. di suñu yaayu. ki ne ngi noonu kalaaraa ngi ne ci yaay waaw. sa teewaay war naa mën ne. waaye yàgg na. nañu dagañ pendoo ngi toog waaw Mbacke Ndiaye ngi toog maa la ko wax tubarkàlla Ndeye Dieye ngi toog Fat Ba naa ngi maa ko wax ay feccikat rek a fi toog ay feccikat rek a fi toog dañoo bëgg ngeen fecc woli maa woli waaye maa ngi seen Adja Atiké Ndiaye sama xarit maa la wax loolu kon raa joxoñ ma ah li fi xamu da nga dugg fii dugg fii e ke ba dañu avancé ba ci kanam mi ngi noonu naa ko gis naa ko gis ah bàyyi fi rek mi ngi nii Abdou Pape Pape Pape Pape Keba maa ngi koy gis mu ne woon. boo di leen boo di leen oto bi dem waay.